waaw comme ni ngeen ko gisee tey dañu wootee euh, parents d'élèves yi ak enseignants yi ak euh, directeur yi écoles yi ndax état du Sénégal dafa décider le 2 juin bii di ñëw muy mardi prochain nii dina ibbiwaat écoles yi ne serait-ce que xale yi nga xamante ni ñu ngi doon euh, ñu ngi war a def examen ñu mën a def examen donc loolu moo tax mairie bi. comme na nam ko commencé depuis mois de mars di jàpp ci li nga xamante ni mooy mbas mi am ci biir réew mi donc ñu wootee enseignants yi ngir jàppale leen ndax xale yi nga xamante ni suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañ suñuy rakk lañ te war a def examen nekk fii ci yëmbal ñu ne xaar leen ñu jàppale leen ngir bu ñu demee ci école yi ñu bañ fa wàllante wala ñu bañ fa jëlee li nga xamante ni moom mooy maladie bi donc looloo tax tey démb bi ñu duggee ci école yëpp muy juróom école yu am ci biir yëmbal ñu jàppale leen ci wàllu désinfection jënd produit bu doy woo ñi nga xamante ni ñooy service di d'hygiène ñu ñëw ànd ak ñun ñu def li nga xamante ni mooy désinfection wu euh, école yëpp donc démb def nañ désinfection wu école yëpp tey ñu jël important benn lot boo xamante ni am na thermoflash am na ay euh, masque ndax élève bu nekk jox nañ la loo toll ci juróomi masque inspection dañu laajoon ni élève bu ne nañ leen jox ñetti masque ñun dem nañ ba ci élève bu nekk juróomi masque Mhm. inspection laajoon ñu ne enseignant bu nekk nañ ko jox juróomi masque enseignant bu nekk jox nañu ko enseignant bu nekk jox nañu ko fukki masque alors donc loolu moo ñu yóbbu tey ci ñeenti junni ak juróomi téeméeri masque ñu jëmale ko ci élèves yi ak junni masque ñu jëmale ko ci enseignants yi jox nañ leen aussi li ñu tuddee gel hydroalcoolique nga xamante ni danañu ko soxla muy surtout enseignants yi jox leen ay Euh, lavoir mais yoo xamante ni xale yi mën nañ fa raxasoo jox leen aussi saabu bu doy jox leen aussi ay madaar donc loolu yëpp bu ñu ko dee def dañu bëgg ni élèves yi nga xamante ni ba tey jii nii amaguñu benn cas bu ñu wax ni dal na xale fii ci yëmbal wala dal na élève fii ci yëmbal ñu continuer noonu ba xale yi dem ba def seen examen bu pare donc looloo taxoon tey ñu wootee ñu loolu taxoon tey ñu wootee ngir que enseignants yi ñëw parents d'élèves yi ñëw ñu mën leen a jox dispositif boobu te continuer di leen accompagner. loolu aussi am na sax avant ouverture bi ndax am na ay élèves yoo xamante ni gisoon nañ ni wala ay duñ sax ay élèves. nit ñoo xam ni am nañu ay terrain yoo xam ne dañ fa doon dem di football ba yenn délégué de quartier yi di ñu alerter loolu aussi bañ ko déggee ñun alerter nañ ki nga xamante ni muy sous-préfet ndax dafa am lu ñu tuddee euh, sécurité publique sécurité publique kooku sous-préfet moo koy gérer en rapport avec le commissaire li nga xamante ni nag mooy le domaine public moom la maire bi di gérer. alors loolu bi ñu ko alerté sous préfet donc wax na ceeg ki mu ci war a waxal muy la commissaire le nouveau commissaire de Yeumbeul Sud le na Kassé donc jàpp naa ni à partir de la semaine prochaine surtout bu xale yi commencé danañ ci jël ay mesures yu baax a baax. cet gi aussi ci wàllu ci wàllu école yi jël nañ ci ay euh, jël nañ ci engagement ah ni danañu renforcé li nga xamante ni mooy école yi. ndax euh, femme de charge yi nekk ci école yi yëpp école publique yëpp maire bi moo leen di fay depuis 2014 ma nekkee maire mais jël naa engagement à partir de la semaine prochaine école bu nekk danañ fa renforcer au delà de femme de charge yi ñu daan fay danañu leen dollil ñaari femme de charge comme ça nga xam ni xale yi bu ñu dee jàng de 9h à 14h30 danañu am ay femme de charge yu nekk ak ñoom en permanence nga xamante ni euh, benn toilette dootu salté et biir cour bi aussi danañu assurer. waa ñàkk kaaraange gi aussi danañ ko gën a danañ ko gën a renforcer ndax euh, yàlla dogal na aussi depuis le début euh, bi ma nekk nekkee maire ba léegi képp ku fi nekk école publique élémentaire donc gardien ya fa nekk maire bee koy fay donc ba léegi danañu continuer ci lool xool aussi naka lañ koy gën a renforcer. alors loolu nag dana naqaree wax trop trop trop trop dana naqaree wax ndax euh, foog nga xool thermoflash bi lu muy jar foog nga évaluer 4500 masques yi masques yi foog nga évaluer 1000 masques yi adultes yi foog nga évaluer li nga ci def ci madaar ak yooyu dama jàpp ni su doon ay milliards aussi jar na ko. ndax li nga xamante ni mooy euh, mooy euh, wér-gi-yaramu sunu doom yi sunu jarbaat yi ëpp na lool lépp luñ ci def rek aussi xale yi mérité nañ lu mel waaw tolluwaayu jàngoro bi ci yëmbal moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ndax xam ngeen ni ñun ah kenn du ñu rey ci biir néeg ba jàngoro ji duggee ci yëmbal man maa taxaw communiqué àdduna yëpp dañu dégg parce que boobu dafa metti woon ndax amoon nañ fukki kaa ak juróom alo yàlla dimbali nañu ñooñu ñëpp wër nañu am nañu nag ay benn ñaar yoo xamante ni amoon nañ ko ci semaines yi ñu génn ñoo ñooñu aussi test yi lañ mujjee defal c'est négatif ñu ngi leen di suivre mais nag dafa fekk ni sama mbokk sénégalais yi ak ñi nga xamante ni dañ ma bëgg fu ñu déggee yëmbal rek dañuy tiit <laughs> mais dama leen di bëgg a rassurer ndax ministère buy communiquer du wax ci commune day wax ci district te district gu yëmbal yàlla dafa dogal euh, yëmbal noor di collectivité territoriale sama frère Daouda Ndiaye jiite ko ak Yëmbal Sud ñoo ko composé am sax ay malades yoo xam ni dañuy jóge Jidda Caaray Kaw dem di fajoo ji dem di consulter ji Yëmbal noor te bu ñu consulter Yëmbal noor ñu gis ci ñoom doomu jàngoro boobu su waa Yëmbal di informer ministère district Yëmbal rek la ñuy wax duñ wax ni kii Malika la jóge ñëw consulter woo Yëmbal duñ wax ni kii Jidda Caaray Kaw la jóge ñëw consulter woo Yëmbal donc pour nit ñi Yeumbeul Sud ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy situation bi fi mu toll nii ci wàllu ci wàllu mbas mi donc loolu ñu ngi ciy gërëm yàlla bu baax di ko ci sant mais nag taxul ni ñu yéene kenn lenn bu yëmbal Nord amee cas mel na ni Yeumbeul Sud moom cas su Djidda Thiaroye Kao amee cas mel na ni Yeumbeul Sud moom cas li may faral di wax da koy justifier ndax dama ni bu ñu xeexoon mbas mi ba mu génn yëmbal dem yoonam te amatuñu ko te benn cas rek des Sénégal. atteindre guñ suñu objectif suñu objectif ñu ngi koy atteindre bu ñu demee bañ ni Sénégal am na zéro cas alors thermoflash yi aussi ñun li ñu mënoon en tant que décideur rek mooy jënd quel que soit prix bi jox ko ñi nga xamante ni ñooy directeurs yi ak enseignants yi alors li ma leen wax nag nee naa leen loolu c'est votre cuisine interne thermoflash bi il ne sert à rien nga bàyyi ba élève bi dugg ci biir salle classe bi nga jox ko maître bi pour muy xool température ndax bu fekkoonte ni élève ba am na ko dugg ci biir déjà mara day taal donc jàpp naa ni war nañu former kenn ci école bi wala sax gardien bi muy taxaw ci buntu école bi di xool température u élèves yi avant ñuy dugg bu fekkente ni sa température élevée na ba ñu wax ni li docteur yi wax su fa température eggee kooku am na ñu njort lu ñaaw ci yow bu boobaa ñu soog a alerte balaa xale bi di dugg ci biir salle de classe message bi may lancé mooy sénégalais yi bu ñu relâché wu te dama jàpp man ci sama gis-gis ci jàngat bi may def depuis que pandémie bi commencé sénégale yi ñu ngi def relâchement ñu ngi def relâchement c'est c'est extrêmement dangereux ñun ñi nga xamante ni nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu parce que nous façons partie des gens yi nga xamante ni ci kaw dañuy woo ngir ñu leen di jox yenn information wala ñu ñuy jox yenn information ñu koy wàccee sama xel dalatul ci comportement yenn sénégalais yi. da ngay gis ku yor masque am war ko takk mu wàccee ko ci sikkimam mel ni masque bi sikkim bi la war a protéger masque bi bakkan bi la war a protéger ak gémmiñ gi donc jàpp naa ni Sénégal amuñu droit def relâchement ci côté boobu donc nañu jàppaat ni les mesures barrières nañ ko gën a respecter ndax Sénégal bi mu amee ñaari cas ci la nit ñi gënoon a tiit que tey bi ñu amee mille six cent cinquante personnes yu nekk ci biir hôpitaux yi loolu c'est extrêmement grave c'est dangereux donc nañu gën a respecter li nga xamante ni mooy les mesures barrières ngir que mbir mi gën a mën a jógee Sénégal ci lu gaaw a gaaw.